ci mbégte ak contentement jàkkaarloog yéen ci suñu label TV salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu salaamaaleykum euh, waa Sénégal salaamaaleykum fudul Sénégal également ñu ngi leen di ziar di leen jaajëfal dellusiwaat nañu ci suñu émission. écho du mondial écho du mondial xam ngeen ne bu ngoonee la saa su ngoonee vingt h jot na mooy euh, war ngeen capter rek sunu Label TV ngir mën a maanaam euh, am le mondial comme ni ma koy waxee rek autrement le mondial ma d'une façon boo xam ne euh, c'est façon sunu Label TV daal maanaam dañ leen koy tegal ci li nga xam ne moom mooy le plateau. de suñu label ngeen consommer que comme il se doit ñu daal di euh, rek euh, def maanaam euh, li nga xam ne loolu la wolof di wax bés du tuut borom lay tollool te tey mooy tey suba la nettali bi te tey la ouverture de la coupe du monde du football 2022 Qatar 2022 tey mooy ouverture bi maanaam tey dund ngeen ko bu dee exactement yéen a ngi woon ci seen kanamu euh, télévision sànq. ah donc euh, dund li nga xam ne moom mooy fi yi am ci cérémonie d'ouverture de la coupe du monde euh, li nga xam ne rek moom mooy les autorités maanaam euh, l'émir son fils et cetera ñi nga xam ne rek maanaam ñooy jiite Qatar waaye tamit le Gotha du football mondial ak Gianni Infantino ak Fatma Samoura ñëpp daal teew daal di fekkee li nga xam ne rek moom mooy ouverture de la coupe du monde 2022 Qatar 2022 ak. Euh, évidemment le premier match de la coupe du monde ñu daal di koy euh, def tey rek mu nekkoon jongante boo xam ne tamit dafay euh, opposer le pays organisateur maanaam Qatar ak Équateur waaw daañ dellu si di bu ci kanamee bu ñu kanamee daañu dellu ci bile jongante tey daañu waxtaanee ki nga xam ne moom mooy Idrissa Gana Gueye Idrissa Gana Gueye yi doon euh, maanaam euh, koo xam ne rek fii la juddoo fii ci mim réew fii ci ndakaaru Dial Diop wala ndakaaru njaay wala ndakaaru euh, beneen sant bu la neex rek Idrissa Gana Gueye juddoo fii ci Médina daañ ko présenté ci suñu portrait du jour d'accord très bien donc après bu ñu paree ci loolu rek nga xam ne benn fan mooy des ci marché bi incha allah bu subaa rek maanaam lu ay doon jaay rek faaw bu lamb suba moom lu waaye doon jaay dina lamb wala bokk euh, ni gars yi di waxee rek wasin mbaa dem tool loolu moom euh, faaw mu am mënta ñàkk donc euh, ay fa ay ay waxtoo des sax léegi mën naa ne ay waxtoo des ndaxte bu subaa incha allah le Sénégal di wàcc ci li nga xam ne mooy terrain bi daal di jàmmaroog Pays-Bas ah donc mu ngi noonu tey capitaine bi nga xam ne moom mooy Kalidou Koulibaly jot na. Euh, drapeau bi maanaam raaya réew mi ci ay loxo njiitu réew mi président de la république euh, Macky loolu mooy suñu programme d'aujourd'hui ñu fas yéene leen gunge rek ci li nga xam ne moom mooy éco du mondial ci suñu Label TV dalee nag jàmm ci seen télé bi nga xam ne yéen a ko taamul seen bopp yéen a ko bëggal seen bopp moo ngi doon ñu daal di tàmbali rek ak euh, li nga xam ne moom mooy euh, jongante bi amoon tey nee naa leen tey moo doon euh, cérémonie d'ouverture waaye nag mooy doon également le match d'ouverture de la coupe du monde tey maanaam Équateur moo demoon fekki Qatar maanaam Qatar mooy dalal donc ça veut dire que Équateur mu ñu fekk si Qatar ci li nga xam ne rek moom mooy le premier match de la coupe du monde Euh, waaye nag euh, maanaam résultat bi ni mu mujjee mooy deux buts à zéro euh, en faveur bien sûr euh, de l'Équateur naxte nag Eder Valencia Ener Valencia plutôt Ener Valencia moo dugal à la 16e minute ak à la 31e minute mu nekk euh, résultat boo xam ne bon baax na départ la pour waa Équateur départ dëggantaan a ngi nii parce que nag Coupe du Monde moom toutes les victoires sont bonnes à prendre kenn du. Euh, kenn du leen ko xeebal naam opposition bi boo xoolee dafa xaw a euh, euh, des tuuti ndaxte nag Qatar dafa mel ni dañoo nekkoon sous la pression peut-être de l'événement yenn saay yi xam nga di nga daalal jongante mais nag pression beeg tout ce qui est autour dina tax ba nga xam ne yenn saa yi ni nga mënee woon sax da nga koy xaw a fàtte stress beeg maanaam coow li engouement bi du peuple dina la tax nga déjouer. waaw nañ ko jàppee noonu xëy na peut-être que euh, daañu waat waa Qatar mais nag euh, du lu ñuy ñaan ñun sénégalais yi. Euh, parce que nag la la prochaine rencontre du du Qatar ce sera contre le Sénégal donc nañu demee ni ñu demee nii rek nañ ko continuer nañ ko wéyal Qatar wéyal leen baax na wéyal leen noonu rek ça fera l'affaire du Sénégal mu ngi noonu donc Qatar daal di raté son entrée dans le tournoi waaye du ñàkk mu daal di noddantikuwaat ah. mën na nekk également ndaxte euh, waaw compétition bi trois matchs la ñàkk premier match bi du tax nga daal di rek ñàkk compétition bi ndaxte premier match après mu des yeneen six points à prendre on jamais ah mën na mën a demee noonu c'est vrai que du lu ñuy bëgg ñun ndaxte nag bëgg nañ am victoire contre le Qatar waaye nag en tout cas c'est la loi du sport loo gis rek ci football euh, dafay dafay am maanaam ay mbetteel yenn saa day am yenn saa yi ay nivellement de valeur day am au cours de la compétition ndaxte dinga nga dem premier match xaw a juum xaw a fakkastalu mais deuxième match bi nga daal di reprendre c'est bien possible également donc euh, yooyu yëpp mën na ci nekk euh, voilà donc ñu daal di rek jàpp tamit également que beneen match bi nga xam ne moom mooy opposé Équateur ak Pays-Bas également ce sera dans la deuxième journée du groupe A acca ñu daal di ñëw léegi nag ci suñu euh, jongante yi nga xam ne rek moom mooy am suba ndaxte nag euh, bu subaa ah jongante yi daañu jax bu baax a baax a baax ndaxte nag à partir de demain ñetti match lañuy daal di am ci journée bi euh, mu nekk rek ay jongante yoo xam ne yu intéressant la ah, benn bi sax particulièrement moom moo ñu gën a intéressé ah. dafa naa ne xel yëpp jamono ji ci jogante boobu la dem ndaxte nag euh, deuxième match bi Sénégal mooy euh, daal di jogante ak les Pays-Bas balaa moo dugg ci terrain bi c'est vrai que premier match bi euh, dina am également ndaxte nag Angleterre ak Iran daañu dajewaat mu nekk rek le premier match du groupe B. groupe B euh, mooy tàmbali après groupe A bi ñëw ndaxte nag xam nga tey mënuñu woon amal ñaari jogante groupe A ndax cérémonie d'ouverture ak match d'ouverture boo ci tegee beneen affaire peut-être day ëpp donc loolu moo tax euh, Sénégal football bu suba ah donc dans quelques heures dañ ko jàppee noonu donc mu ngi noonu donc euh, Angleterre Iran 14 heures beneen marché bi Sénégal Pays-Bas 16 heures après troisième match bi mu daal di noonu. Euh, États-Unis ak pays de Galles ñooy daal di jongante à partir de 19h mu nekk également euh, mbir mu euh, mbir mu doy waar ndaxte ci groupe bi nga xam ne mooy groupe B bi dafa am benn sew-sew bu ndaw bu ci nekk boo xam ne certainement seetlu ngeen ko ndaxte ñaari dëkk yoo xam ne Royaume-Uni la ñu soqe ko ñoo bokk ci groupe bi mooy pays de Galles ak Angleterre donc ñaari dëkk yoo xam ne Royaume-Uni la ñu bokk daañu jongante. mu nekk loo xam ne tamit lu neex lay nekk euh, donc euh, xam naa ne opposition bi dina tàng kenn du ci euh, nangu bàyyil moromam lu toll nii tara fattal ay nii kon nag ñu yaakaar ne match bi dina neex mu ngi noonu ñetti jongante yaa ngi noonu ma fàttali looy quoi encore une fois fàttali les trois matchs de demain maanaam Angleterre Iran à de 14h Sénégal daal di jonganteeg Pays-Bas à partir de 16h après mu des troisième match bi États-Unis daal di jongante ak pays de Galles. mu ngi noonu ayca ñu daal di rek euh, wëyal suñu programme écho du mondial ma koy fàttali ci suñu label TV lay am tous les jours de euh, tous les jours du mois de euh, de coupe du monde bi ñu nekk nii donc mois bi du commencer le premier novembre Euh, mois bi le 20 novembre lay commencé weer baa ngi soog a tàmbali weeru coupe du monde baa ngi soog a tàmbali jëm 18 euh, décembre donc euh, maanaam bu subaa rek car macha allah ñu daal di jubal ci yooyu les matchs donc. groupe B bi particulièrement sànq maa ngi koy wax dafa dafa dafa am sew sew bu ci nekk ndaxte particularité bi moom mooy Royaume-Uni ak Pays de Galles ñoo daal di bokk groupe. nekk euh, ci même euh, maanaam entité bi maanaam ci Royaume-Uni donc USA euh, donc États-Unis ak Iran également ñu daal di dajewaat ginnaaw bi ñu dajee ci coupe du monde quatre-vingt-dix-huit boobu les groupes sax d'ailleurs ki ñu koy faram-fàcceel du kenn ku dul Sira Béatrice Ndione ñu daal di koy teewlu. groupe B bi fas ni naa am taxawaay bu am solo ci coupe du monde bi. réew yi ko sekk nag di Angleterre pays de Galles États-Unis ak Iran ci yile réew nag faw ñaar tase si ngir mën a amal seen jongante yu njëkk lu ci mel ni réew bu Iran ak États-Unis ñaari réew yi nar a amal yile jongante naam sax bu ñu fàttalikoo tase woon nañ ci coupe du monde bu atum 1998 naam sax jamono jooju dina wuteeg bile ndaxte joueur yi doon nañ amal tànku jàmm di weccoo ay fleur ngir fësal jàmm bi dox seen diggante poule B bi dañ ko door rek réew bu Angleterre ak Iran naka noonu réew États-Unis pays de Galles bu ñaar fukki fan ak benn jotee ci weeru novembre bile. Sira Béatrice Ndione moo doon présenté euh, le groupe B bi nga xam ne euh, maanaam Angleterre ñëpp euh, certainement wala bokk la majeure partie de bookmakers jàpp nañ ne moom mooy nekk premier de ce groupe. Angleterre eh, waaye nag am ci biir am na États-Unis ah, bu ko kenn fàtte am na solo lool tamit Iran eh, ñoom dañuy dem ba jeex ndaxte maanaam c'est des guerriers naturels ah Iran Iran Iran c'est eh, dañuy dañuy dañuy dem ba jeex carrément ak pays de Galles bi nga xam ne rek moom moo mëtali bile groupe car machallah donc mu nekk tamit un groupe intéressant le groupe ah ñu daal di koy bàyyi xel bu baax ndaxte suba. daañu jongante ñoom ci euh, li nga xam ne rek moom mooy journée bu suba bi incha allah mu ngi noonu donc euh, ñu daal di ñëw ci euh, la suite des événements bu ñu paree ci la présentation du groupe ñu daal di ñëw ci li nga xam ne tamit beneen sew-sew la ci coupe du monde bi beneen bees-bees la ci coupe du monde bi beneen innovation la ci coupe du monde bi wala beneen maanaam xalaat boo xam ne sax waroon na am bu yàgg car macha allah euh, ndaxte euh, xalaat boobule moom mooy boole arbitre yu jigéen ñi ci bile compétition. Euh, commencé woon nañu dugg ndànk ci arbitrage bi ah ba nga xam ne léegi am nañu ci ràññeeku bu baax a baax a baax a baax euh, rek ñu daal di euh, saytu li nga xam ne moom mooy particularité bu coupe du monde année bile nekk donc jigéen ñu daal di sóob seen loxo bu baax ci li nga xam ne mooy arbitrage bi ak ay arbitres yu jigéen yoo xam ne ñu ngi ci biir ñett lañu arbitre centrale ak ñetti arbitre assistante ñu daal di li nga xam ne moom mooy euh, euh, bile euh, ki ñu sax moom mooy Fatou Seye ñu daal di koy teewlu. mbégte bu uh, mag laa am ngir xamal leen ni arbitre jigéen bu gën xarañ ci àdduna wërngal këpp bi Stéphane Frappard la coupe du monde ca Qatar 2022 dina des ci xelu nit ñi ba faw ndaxte arbitre jigéen yi dinañ fa am taxawaay ndax bii mooy njëlbeen ñuy sex mbiit ci jongante ay góor ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñeent officiel yi ñu tànn ñetti jigéen bokk nañ ci lim bi ci jongante gi nar a dajale àdduna wërngal këpp ku ci mel ni Stéphane Frappart bu France Salma Mukazanga bu Rwanda ak Yosmi Yamashita bu Japon kii di Frappa mës na superviser jongante qualification yu coupe du monde ak bu ligue des champions ci kaw ba mu lijjantee coupe du monde bu jigéen yi ci 2019. ci atum 2021 Yamashita moo nekk jigéen bi njëkk a arbitré jongante góor ca ji ligue nationale ci atum 2022 bi ñu nekk mu nekk jigéen bi njëkk a arbitré ligue des champion bu tëkkam bi di asi ñu jaajëfal ko moom mi lay Fatou seen daal di am mbégte certainement ñàkkul ne fierté bi nga xam ne euh, moom la soxna yi bëgg fuwal am wax dëgg fa yàlla dina gën a fës ci bile mondial ndaxte euh, pour la première fois ay jigéen daal di ñëw euh, atte jogante boo xam ne ay góor a ko seex mu nekk tamit un grand honneur donc ñu ne di leen wax rek dal leen ak càmm voilà te euh, am nañ abitude bi sax ah di maanaam euh, dugg ci biir terrain bi nga xam ne ay góor ci nekk daal di arbitrer voilà innovation bu naaj ñu kontaan ci bu baax baax a baax. acca waxoon naa la ko sànq Idrissa Gana Gueye ñu daal di koy rek teewlu moom mi la tamit ki nga xam ne Medina la juddoo dégg naa ne Medina moom ko fa juddoo rek boo doxee ñu xàmmee la. waaw xëy na ñàkkul ne tamit falaa laa juddoo ah il se peut ñàkkul ah en tout cas daal mu ngi noonu natif de la Médina la te ñu daal di koy tàggatee maanaam bi mu nekkee tout tànk ci jàmbaar euh, bu mu nekk nii ci jamono mu muy Everton euh, ki ne di Idrissa Gana Gueye ndaxte euh, fa la nekk jaar na Ligue na fa dellusiwaat na fa ak PSG daal di rek wane boppam bu baax a baax a baax Idrissa Gana Gueye ki ñu koy nettali moom mooy xawali Idrissa Gana Gueye mi ngi gane àddina ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre atum 1989 ci Ndakaaru footballeur international doomu senegal ji ñu ngi ko ràññee mu nekk milieu de terrain Gana Gueye atum 2008 la yegsi foofe ca LOSC mu bawoo senegal ak club bii di jombar ñu ràññee ko Goulet ca Lille ci mat Xaatim ak Aston Villa saison ci août atum 2016 Gana Gueye nangoo nekk ci Everton ngir ñeenti saison fanweeri fan ci weeru juillet atum 2019 la Gana Gueye xaatim ab contrat wu ñeenti at ak Paris Saint-Germain League laata muy nërmeelu ci Ligue de champions ci kanamu Bayern Munich ci atum 2021 ki nekkoon jàmbaar ñu génnee ko ci jongante bi ci ab demi-finale aller ci Ligue des champions UEFA boo xamante ne fan ci weeru septembre atum 2022 la Gana Gueye ñëwaat foofe ci Everton mu xaatim fa ab contrat ñaari at ci octobre atum 2011 Gana Gueye ñu tànn ko guléet mu ñëw ngir football ci équipe nationale bu Sénégal ci atum 2012 doomu Medina ji bokk ci football kat yi ñu tànn ñu war a jongante ngir Jeux olympiques yu Londres Gana Gueye bokk ci Coupe d'Afrique des Nations ci atum 2015 Sénégal sorewul woon ci mbir weesuwul phase de poule yi ñaari at lañu ca teg Sénégal ñu génnee ko ci bile jongante quart de finale lañu yem ci kan ba nu amal ci atum 2017 bi woon bu njëkk ak équipe nationale ak mayo bu Sénégal Gana Gueye mi ngi ko dugal ci match boo xamante ne ngir qualification ngir kan atum 2019 la woon Sénégal doon laale ak Guinée équatoriale ci atum 2018 Gana Gueye bokk ci ñaar fukk ak ñetti joueur yi ñu woo ngir ñu bokk ci coupe du monde bi ci atum 2019 Gana Gueye ñu woowaat ko ci équipe national bu Sénégal mu bokk ci atum 2021 itam Gana Gueye bokk na ci joueur yi nga xamante ne Aliou Cissé da leen ngir kaan bile Gana Gueye ak ay ñoñam ñoo jël raw gàddu ngànk raaya kaan gi ci bile jongante Gana Gueye ak yeneen footballkat yi ñu ràññee ci équipe national bu Sénégal ñuy xaar seen jongante ci coupe du monde ndax ñoom ñoo ngànk raaya gi ñoom ñi champion d'Afrique ndeysaan waaw euh, jaajëf xawali euh, maanaam euh, ci montage bi ba muy jeex boo seetloo am na benn mbir boo xam ne dafa dañ ko dañ ko def maanaam sew-sew bu ndaw boo xam ne gars yi dañ ko def certainement monteurs yi ñoo ko daal di def te xamuñu sax exactement porté wu bile image certainement xam nañ ko ñàkkul mais en tout cas man seetlu naa Coupe d'Afrique bi gars yi brandir ci benn côté bi ñu daal di ci teg li nga xam ne moom mooy Coupe du monde FIFA 2022 maanaam bi sotti na donc donc beneen bi moo des euh, maa ngi ko wuti ndam di rek car macha allah waaw euh, euh, maanaam à cœur vaillant rien n'est possible nee nañu nit moom bu dee dafa jug rek ak yéene maanaam dara tëwu ko lépp mën na xew lépp mën na xew wax dëgg lépp mën na xew te nañ ko nañ ko nañ ko nañ rafet njort rek ci bile mbir que ni Sénégal. Euh, car macha allah mën na fa jëlee euh, ndam waaw ndam de ba moom la bëgg car macha allah acca ñu daal di euh, rek Idrissa Gana Gueye c'est mu nekk euh, tamit bokk ci euh, yaakaar yi nga xam ne moom lañ am ci équipe nationale wax naa ko démb rek nee naa du euh, Kalidou Koulibaly rek Kalidou Koulibaly rek du ki nga xam ne moom mooy Sadio Mané rek naam neew fi waaye tamit Idrissa Gana Gueye également ak expérience bi mu jot a dajale 2012 2012 football na li nga xam ne moom mooy Jeux olympiques ah ak équipe olympique bi nga xam ne maanaam euh, ñoom ñoo demoon Londres toj fa na am quart de finale la ñu yemoon waaye nag ca la ñu daal di euh, rek euh, suqaliku bu baax a baax daal di nekk maanaam pépinière boo xam ne moo ñu jurul mille 2022 li nga xam ne moom mooy le sacre continental maanaam coupe d'Afrique euh, de nations euh, car macha allah Idrissa Gana Gueye euh, nekk tamit ku am jom bu baax a baax a baax jom ji nga xam ne moom la ñu sàkku ci Sénégal yi nekk fële ci Qatar daal di ñuy représenté que ce soit footballkat yi mais également ñi nga xam ne moom mooy supporters yi également bëgg nañu ñun ñu daal di wane bu baax seen maanaam seen yar nañ ko defee Russie rek. ba ñu ba ñu ba ñu naw leen ah ba ñu nekk Russie dañu nekkoon ci délégation boo xam ne maanaam eh, am classe am style ba gaa yëpp naw leen naam bëri wuñu woon waaye dañoo wane woon yar goo xam ne ñëpp la nawoon exemplaire en Russie li nga xam ne mooy supporters yi boobu les comportements la ñu bëgg am ci supporters yi mais également ci biir terrain bi tamit eh, li nga xam ne rek eh, équipe nationale di déplacé wu muy football muy beneen xeetu tàggat yaram maanaam dañ leen di jox raaya yenn saay ministre des sport moo koy joxe yenn saay nag euh, comme grand événement bi lee le président de la république moom moo daal di euh, dem ci footballkat ya fekk leen ca Qatar daal di leen koy jébbal li nga xam ne moom mooy raay réew mi mu nekk signification bu doy ndaxte nag bu la sa njiitu réew jëlee euh, ci ay loxoom jébbal raay réew mi maanaam fu mu nekk nii ambassadeur ga kese nag du leneen lu dul ambassadeur lañ leen nommé ñi nga xam ne ñooy les joueurs de l'équipe nationale donc taxawaay bi ñu war a am taxawaay bu rafet la taxawaay bu exemplaire la taxawaayu sénégalais la war a nekk donc euh, mu nekk loo xam ne euh, tamit euh, maanaam moment de comment dire de de de la ak de ñaax waaw dañuy ñaax gars yi di leen soññaat ne leen Sénégal nag ah ñu ngi seen ginnaaw de 17 millions de sénégalais ñu ngi am yaakaar ne di ngeen fa euh, wane seen euh, bopp ci li nga xam ne rek moom mooy euh, la compétition la plus suivie ci àdduna bi ci wàllu football muy rek coupe du monde de football mu ngi noonu président de la fédération maître Augustin Senghor ak li nga xam ne moom mooy maillot bi ñu dédicacé au président de la république rek daal di ko koy jébbal nii mu nekk loo xam ne vraiment tamit waaw lu lu lu lu lu lu rafet la également ndaxte nag moom tamit moom mooy le premier supporter du Sénégal c'est normal ah mook soxnaam ku ci nekk daal di am maillot waaw euh, waaw kay mu ngi doon très bien euh, ñu daal di koy fas yéene sol rek bu Sénégal di jongante mu nekk tamit euh, di beaux moments de communion loo xam ne maanaam dañuy fàtte problème yi fàtte fête yu fàtte appartenance fàtte waaso fàtte li nga xam ne rek moom mooy conviction politique ñëpp daal di déggoo daal di jublu ci li nga xam ne moom mooy l'essentiel l'essentiel mooy rek Euh, lekk muy mooy daal di nekk li nga xam ne mooy l'essentiel mooy la victoire euh, finale écho de la tanière donc ñu daal di bàyyi xel ci li nga xam ne moom mooy euh, le sujet bi nga xam ne kii bi Tidiane Sy moo ñu ko daal di présenté ci dalluwaay équipe nationale Sénégal bu football mu nekk Duhal All and Bold Sport ca Dowa foofu la ñu amalee cérémonie bu ñu doon joxe raay réew mi équipe nationale bu Sénégal loolu mi ngi amee ci teewaayu président de la république Macky mu ànd ceeg jabaram joueur équipe nationale yu Sénégal ak délégation Sénégal bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca Qatar. cérémonie boobu la nag ñu ngi ko amalee tey ci dimanche ci li gannaaw ba Macky Sall joxee raay réew mi capitaine équipe nationale bu Sénégal Kalidou Koulibaly daal dina koy jébbal moom itam maillot équipe nationale bu Sénégal bu ñu daal di def numéro 27. tey ci conférence de presse bu mu doon amal entraîneur équipe nationale bu Sénégal Aliou Cissé ñëwaat na ci match bi Sénégal war a suba seen diggante ak waa Hollande absence su Sadio Mané ak ni nga xamante ni rek noonu la Sénégal. war a footballé suba moom mi ngi xamle ni rek dinañ def seen kéem kattan ngir daal di am résultat bu baax ci mas ci mbiru Sadio mu ngi xamle rek ni wér-gu-yaram joueur moom moo war a jiitu lépp loo gis daanaka rek même bu fekkee ñàkk nañu Sadio Mané am na ay yeneen joueurs yu nekk ci équipe bi yu mën a def liggéey bu mucc ayib lu ci mënti am rek Aliou Cissé moom mi ngi daal di xamle ni xoolul li nga xamante ni moom la Hollande indi moom lu ko ñor moo lan lay proposé suba ngir daal di gagné Hollande gannaaw ba mu xeeju remplacé Sadio Mané ak gannaaw itam ba mu seetloo jafe-jafe yi nga xamante ni Ismaïla Jacob daal dina ko am coach équipe nationale bu senegal Aliou Cissé daal dina rek woo latéral gauche Moussa Ndiaye ngir mu daal di remplacé Sadio Mané ci coupe du monde bi li xibaar boobu bi li fédération Sénégal bu football ak staff équipe nationale bu Sénégal ñu ko daal di xamle démb ci guddi benn fan rek moo daal di des Sénégal daal di football masam bu njëkk ci coupe du monde waaye jafe-jafe yi ba tey ñu ngi koy seetlu ci équipe nationale bu Sénégal gannaaw blessure Sadio Mané jafe-jafe kayit Ismaïla Jakobs daal di am latéral gauche bu équipe nationale bu Sénégal Fodé Ballo-Touré dafa daal di rek dagg entraînement bi mu doon def tey li ko waral Fodé Ballo-Touré dafa am ay métit yu muy daal di yëg ci yaramam ci naka noonu Fodé Ballo-Touré ndaxte bokk ci match bi nar a am suba ci match bi war am ci match bi war a am suba. moo ngi Euh, jaajëf Tidiane si ci euh, li nga xam ne rek moom mooy euh, li xew ci biir maanaam groupe bi maanaam tanière lañ ko tuddee ndaxte boo déggee ñu tuddee ko tanière moom mooy que ni ay gaynde lañu te gaynde maanaam day am foo xam ne fa lay fa fa lay fa lay làqu ah di defar ay mbiram waaw kay loolu moo tax ñu doon daal di koy tuddee tuddee la tanière des lions waaw kay ah, te ñu yaakaar ne les lions ah, daañu daañu rugir bu subaa les lions rouges ñu rugir bu baax a baax car macha allah aja ñu daal di wëyal ak li nga xam ne moom mooy euh, le buzz de la toile xam ngeen ne tamit euh, coupe du monde comme ni ma leen ko waxee démb du rek ci terrain bi lay xewee waaye ci internet également di ngeen am euh, ay mbir yoo xam ne dafay xew ñu daal di koy teewlu. defe naa ne boo ne Afrique faaw nga ne Kwame Nkrumah ak ñeneen ak ñeneen waaye Kwame Nkrumah euh, maanaam euh, def na fi loo xam ne euh, ba ilaa yawmi diin kenn du ko fàtte donc waa équipe bu Ghana tenue yi ñu sol nii mooy les tenues Kwame Nkrumah car macha allah mu nekk buzz tamit ci li nga xam ne mooy la toile. yéen a ngi ci sunu Label TV waxtu bi nga xam ne moom la ñuy dalal suñu invité daal dina jot am naa yaakaar ne mu ngi en ligne notre invité Abdoul Aziz Mboup consultant en football. Euh, Est-ce qu'il est en ligne Salam alaikum. Abdoul Aziz. waaw. sama sëriñ maa ngi lay ziar de. maa ngi lay ziar bu baax non yow yaay sama sëriñ Abdoul Aziz yaay sama sëriñ. non bàyyil mu nga nekk ma nekk taalibe rek. <laughs> ça va bien lu bees. ça va yow yaa bees naka activité yi. ñu ngi lay ziar dalal oui. kontaan naa ci cravate bi. ah waaw tuddee naa la kon. <laughs> kañ kañ nga koy ngénte. waaw heure heure bu Sénégal euh, gagné coupe du monde bi rek mu ñëw ngénte ko incha hmm. allah. ok euh, xam nga ne la promesse est am na ku fi digoon euh, maanaam bu France gagné mu daal di wat bopp bi. te alors que karaw bu <laughs> bëri la amoon te finalement bi France gagné dafa wat bopp bi mu daal di yéem ñëpp yaa ma dig dinañ ngénte cravate bi bu Sénégal gagné coupe du monde. incha allah. kon loolu moom maa la ko dig. yàlla na ko yàlla def. ça bien. ça va ça maa ngi ci jàmm bu baax a baax. ayca ñu fas yéene waxtaan. ci maa ngi maa ngi nuyu waa suñu Label TV yëpp. dalal jàmm. Euh, di leen euh, sargal. Mhm. vraiment suñu télé la. wallaay. Mhm. dëgg la car macha allah acca donc euh, ñu fas yéene waxtaan ci li nga xam ne moom la àdduna bi yëpp di waxtaanee ci jamono ji amul fenn fooy dem ci benn information te gisoo ci fenêtre boo xam ne day wax ci coupe du monde de football. événement bu ni mel euh, ñeenti at yu nekk lay am euh, football nee nañu maanaam dootul sport rek waaye leneen ak leneen ak leneen la euh, maanaam en tant que consultant yow nan ngay nan ngay décrypter le football actuellement à travers le monde. waaw xam nga football bu njëkk plaisir la woon. Mhm. vraiment adduna di dox adduna di dox ba tey jii vraiment mu doon industrie. Mhm. ñu gis euh, ñu ci bëri ñi nga xamante ni dañ ci investir. Mhm. parce que mi ngi jur loo xamante ni. football li mu mën euh, dafa naa ni euh, bëri na sport yoo xamante ni ñu ngi nekk ci àdduna bi te mënuñu ko. dëgg la tey football moo doon fekk tey jii koo xamante ni nekk na ci quartier amul métier. Mhm. njàngam yàqu na mu xëy tey jii fexe ba yàlla mën ne ko gan à travers ses pieds. loolu football rek ko mën par exemple l'exemple euh, du pays le plus titré du monde le Brésil mhm. te jii euh, gis nañ fi ay doom Brésil yoo xamante ni ñi ngi juddoo ci ay bidonville ñoo xamante ni seen yaay amul seen papa amul tey jii ils sont devenus des milliardaires à travers le football waaw kon football industrie lañ gis nañu euh, opérateur économique yi bëri ak ay bailleurs de fonds yu bëri. Mhm. yoo xamante ne tey jii seen ay xaalis ñu ngi ci football mhm. kon football le football est devenu une industrie. dëgg la euh, léegi def jàpp naa ne parents yi euh, dootuñu dóor seen doom bu ñu buggee football dañ leen di encourager au contraire. waa gis nga Sénégal bu njëkk li ko gën a boo xoolee les meilleurs footballeurs sénégalais à l'époque parce que on dit souvent a ah, sama benn grand frère mooy wax ni le football au Sénégal est né à Saint-Louis grandi à Thiès. ah oui vieilli à Dakar. Euh, effectivement les premiers grands footballeurs du Sénégal sont venus de Saint-Louis la première capitale du Sénégal euh, bëri na ay joueurs yoo xamante ni. Euh, ñi njëkk a constitué les premières équipes sénégalaises de football équipe nationale Sénégal bu njëkk defe naa Saint-Louisien yi. Mhm. ak Thiessois yi ñu ci ëppoon. dëgg la dëgg la waaw euh, tudd nga Saint-Louis tudd nga Thiès. boo nee Saint-Louis ne Thiès. waaw ma ma ma ma terminé li ma doon wax. dama ni bëri na ay euh, euh, anciens footballeurs Sénégal yoo xamante ni. ok li tax sax réussir ñu parce que seen parents yi dañ leen doon vraiment di wax ni. toppatoo leen seen jàng. waaw toppatoo leen seen jàng. waaw dëgg la a gën a sax tardé ci football bi. Mhm. par rapport à nos euh, euh, boo ne Thiès ne Saint-Louis ne Dakar Ziguinchor Kaolack Kaolack muy Sénégal Sénégal mhm. euh, dans quelques heures du ma sax suba dans quelques heures mu daal di rek sóobu ci mbir mi ndaxte nag wax dëgg dafa nekk le premier match du Sénégal Sénégal Pays-Bas euh, yow noo ko noo ko jàngatee de prime abord. waa gis nga euh, vraiment yaa ngi wax naan dans quelques heures mais le match que le Sénégal doit disputer demain face aux Pays-Bas. Mm-hmm. depuis une semaine les Sénégalais dugg nañ ci giso maman mi avec euh, ce joli maillot. Euh, avec le drapeau du Sénégal bi ma arboré. absolument offert par cette occasion par ma femme. ah macha allah. voilà gis nga ñu ñëpp ko ñi ngi xaar match boobu mhm. combien important ah combien important pour le l'équipe nationale du Sénégal combien important pour l'avenir du football du Sénégal mhm. euh, ñu war ci daje nag un très grand pays de football les Pays-Bas mhm. vraiment qui dans le passé comme je le disais tantôt bëri woon ay soppe loolu fii ci Sénégal on s'en rappelle tous que les premières images de télévision yi arrivé fii au Sénégal c'est vers les années soixante-quatorze soixante-dix-huit mhm. te mu coïncidé avec des années de coupe du monde les Sénégalais étaient fans de euh, Johan Cruyff Johan Niskens ah, euh, euh, euh, Robbie Renzenbrink mm -hmm. les frères Van de Kerkhove Marinus Israël et, euh, et tant d'autres euh, joueurs hollandais yi nga xamante ñoom Harry Anne ñoom Rudy Kroll mhm. euh, tey jii nag Sénégal bu àdduna di dox ba Sénégal di jouer euh, sa troisième coupe du monde di daje euh, suba incha allah en ouverture face aux Pays-Bas mhm. vraiment muy match boo xamante ni tout le monde entier ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaar bu baax a baax a baax mais malheureusement nag am cat bi nga xamante ni mhm. xaw na ci dugg nous jouerons cette ce, ce match-là sans, de, sans notre meilleur joueur, mm nga ko moom mi la maane naam côté euh, Pays-Bas également euh, maanaam seen meilleur joueur tamit du bokk ci mbir mi muy de Depay waaye nag Sénégal dafa maanaam commencé am Sadio maane dépendance ñu bëri loolu jàngat bu fekkee ne Sadio maane nekk fii lan nga yaakaar ne Aliou Cissé. Euh, dina ko mën a teg comme stratégie pour mën a euh, doxal maanaam li nga xam ne moom la am euh, comme yéene pour Sénégal daal di génn ci comme ci match boobule contre les Pays-Bas. mais xam nga ba léegi sax Sadio Mané li mu représenté ci l'équipe nationale du Sénégal. Mhm. ça n'a rien à voir à ce que même fils de Paille représente dans l'équipe des Pays-Bas. Mhm. Parce que là, nous perdons le deuxième joueur mondial, Sadio Mané, euh, qui est titulaire par, à Thiers euh, au, au, au, au Bayern, Bayern Football oui. Club de Bayern Dominique. Mm -hmm. Tandis que euh, l'autre, euh, Depay. Memphis Depay, mm -hmm. a des difficultés avec son club euh, oui. à, Barcelone. Oui. Bon. Sénégalais, bien vrai qu'on perd 50% ou 60%, mm. parce que 50% sur le terrain, mais 10, 20% ou le 10% qui notoriété, bien à Sadio Mané, moom la am dans le football. absolument euh, euh, en en attendant dégg dégg turu Sadio maane rek dans une équipe. dafa naa ni dana ragal loo ñu bëri. dana tax benn défenseur du yéeg. Euh, te Sadio Mané nekk fa. vraiment ne Sadio maane le Sénégal perd vraiment un de ses grands joueurs. léegi ma lay ma laaj ndax Aliou Cissé. est-ce que euh, dina am beneen pexe yaakaar nga ne maanaam dina teg beneen stratégie. effectivement pe pexe pexe pexe pexe du ñàkk. Mm-hmm. du parce que on a un groupe de vingt cinq joueurs qui sont là. Mm-hmm. des garçons qui sont pétris de talent pétris de talent yoo xamante ni dans leur club respectif. Mm-hmm. ñu ngi dox vraiment ñu ngi dox on les voit tout le temps marquer des buts faire des passes décisives faire de très grosses performances à l'image euh, de Ismaïla Sarr qui sera vraiment notre fer, fer de lance mm -hmm. demain face aux Pays-Bas. Mm a aussi euh, le monégasque Crépin Diatta. Il y a le joueur de Sheffield United, mhm. Iliman Ndiaye. Euh, mais aussi euh, euh Bambadien, le Français. Il y a aussi le jour de mhm. Salernitana, Boulaïga. Mhm. Vraiment, lui aussi, vraiment dina faire, faire tout, créer ben amalgame avec ben alchimie totale entre de ces attaquants yi nga xamante ni moom la am euh, su la main euh, vraiment man aussi waxoon naa ko keroog ci émission wu euh, suma journaliste préféré Alioune Touré mhm. que dans ce man j'opte pour un système de quatre quatre deux en losange ah. euh, avec Iliman Ndiaye en neuf et demi mhm. et euh, euh, Crépin sur le côté droit il il Euh, Ismaïla Sarr sur le côté gauche comme mhm. avant-centre. Mhm. Euh, Boulaye Dia. dëgg la euh, yow loolu nga gis 4-4-2 en losange. oui oui 4-4-2 en losange. Mhm. vraiment dina ñu permettre d'abord pour ñu contenir cette équipe des Pays-Bas nga xamante ni. ñoom seen jeu yëpp ils passeront par les côtés parce que man au niveau de la ligne intermédiaire man awma ci souci parce que on a joueur. aussi important que Idrissa Gana Gueye nga xamante ni il sera là debout comme un soldat mhm. nga xamante ni moom loolu yëfam la dans les euh, euh jaillissements dans les interceptions mm -hmm. et, et et tant d'autres euh, caractéristiques yi nga xamante ni mooy permettre à un milieu défensif vraiment mu couvrir sa défense mm -hmm. dëgg la euh, waaw a euh, côté de à côté de Idrissa Gana yow euh, boo doon choisir ndaxte nag le choix est multiple boo xoolee ah maanaam am na xale yu bees am na ñu fi gën a yàgg comme Cheikhou yow bu doon bu doon yaay tànn kan nga kan nga ci jël ci milieu bi pour mu pour mu kii ko pour mu stabiliser milieu bi a côté de Idrissa Gana comme ni nga ko waxee. non bëri na bëri na ay option bëri na ay option. Mhm. par exemple Idrissa Gana Gueye nga bâtir sa milieu terrain là. am na alternative am na am na option nga boole ko ak Nampalis am euh, qui ki qui est d'ailleurs qui était le meilleur milieu défensif euh, de la CAN en tant que on a vu aussi le nouveau venu euh, Pathé Ciss le joueur du Rayo Vallecano d'accord on a aussi un excellent footballeur bu ñuy wax Pape Alassane Gueye mm-hmm. aussi tamit souvent dañuy euh, décrier le milieu sénégalais parce que dañuy ne dañ ko considérer comme un milieu ultra défensif oui. or que y a un garçon vu ces euh, matchs yi nga xamante ni moom la mujjee def en équipe nationale mm -hmm. euh, je veux nommer le jeune euh, l'un des plus jeunes joueurs de cette coupe du monde d'ailleurs Pape Matar Sarr Pape Matar euh, l'ancien joueur de, de de du football club de Metz et de mhm. Génération Foot mhm. qui euh, joue actuellement en Angleterre o Tottenham Hotspur. Pape mhm, euh, Matar Sall avec son jeu avec euh, nu mu sax naka laa ko mën a waxee sa créati créativité dafa naa ne doon na indil Aliou mhm. lu bëri su fekkee jox nañ ko confiance ci milieu bi. waaw waaw waaw waaw 4-4-2 moom maanaam Euh, comme ni nga ko waxee mën na def ay combinaison yoo xam ne dina mën a permettre maanaam euh, mu daal di euh, rek am li mu bëgg contenir d' abord et puis se proté se projeter vers vers l' avant daal di am. dara parce que parce que parce que coupe du monde du caaxaan. Mhm. tu ne peux pas venir nga ni damay défendre quatre vingt dix minutes. Mhm, mhm. waaw comme da ngay mën a tàngee entre la défensive et l' vraiment ñun suñu yoree ballon bi attaquants yi nga xamante ni hmm. ils sont explosifs que ce soit sur les côtés que dans l'axe oui. il faut ñu am un joueur capable de rejoindre hmm. mais c'est pas Matar Sarr vraiment année euh, benn profil boo xamante ni hmm. vraiment man gis naa ni euh, euh, koo ko booleel ci milieu terrain bi mën nañu valoir beaucoup beaucoup de satisfaction dëgg la flanc gauche bi ñu xaw a tiital comment comment on fait avec le flanc gauche non flanc flanc gauche bi maa ngi ciy dégg avec euh, euh le problème bi nga xamante ni Ismaël Jacobs. Mm am na ko des problèmes administratifs. xaw ma nag aw ma les tenants et les mhm. ndax euh, jour booy convoqué équipe nationale da nga war a am la certitude que ni lépp jarne na yoon. dëgg mais comme ni nga koy wax loolu mais aussi am leneen loo xamante ni mhm. dellu si na ci mooy la blessure. Mhm. Euh, de Fodé des touré xaw ma nag. Euh, Euh, fu mu mujj euh, am na y a des gens même qui l'annoncent euh, forfait pour le premier match mhm. mais foofu awma ci souci avec l'arrivée de Moussa Ndiaye mais aussi bu ñu fàtte ni le défenseur l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain actuellement à Leipzig Abdou Diallo oui vraiment day jouer poste boobu comme arrière gauche mhm. surtout que ñun dans l'axe on peut Koulibaly Koulibaly am na ñàkkul ñu ñu ko mën a booleel. mën nañ ko booleel ak Cheikhou Kouyaté. absolument mën nañ ko boole ak euh, comment dirais-je encore. Euh, euh, Papa Abou Cissé l'ancien Pikinois. oui mën nañ ko mën nañ ko booleeg comment dirais-je encore même Pape Alassane Gueye peut jouer dans l'axe. waaw waaw c'est vrai. Mhm. parce que on l'a gis avec l'Olympique de Marseille. Mhm. voilà dëgg la waaw kon sur le flanc gauche ci souci. Mhm. waaw. ok très bien donc euh, mu nekk euh, loo xam ne euh, suñu yaakaar la ñun ñëpp instant bi nii ba nga xam ne Sénégal dina dérouler bu baax bu subaa alors la dernière question bien sûr moom mooy li nga xam ne rek moom nga mën a en tant que en tant que consultant en tant que connaisseur de football lan nga mën a dénk yi c'est vrai que passion bi instant bi mu ngi commencé jug. Euh, lan nga denk sénégal yi par rapport euh, au résultat bu suba mu nekk positif que bu nekk négatif ndaxte yëpp mën na am euh, mais ça veut pas dire que la guerre est finie. Ah waaw bala maa ñëw ci question bi maa ngi damay dellu si rek. Mhm. bala maa dellu si question bi. oui. damay dellu si rek sànq ci nit ki nga nga xamante ni moom nga jeexale avant nga ma mooy Kwame Nkrumah. ah oui nekkoon un un un grand sportif. Ah. pas que le meilleur joueur africain de tous les temps est venu du Ghana. Mm -hmm. il s'appelle euh, euh, mhm. Baba Yara. Baba Yara. Euh, même le même le Real de Madrid est venu le chercher. mais ce jour-là Koulima a dit que Baba Yara était invendable <laughs> vraiment tey jii bu ñu bu les Black Stars du Ghana. di mhm. à la coupe du monde. Mhm. indiwaat image am vraiment dafa hmm. neex loolu ci euh, Afrique. dëgg la waaye les Sénégalais nag li ma leen di dénk mooy ñu faire confiance à leur équipe xam ni on a une très très grande équipe. Hmm. équipe boo xamante ni il jouera la coupe du monde sans complexe. Euh, bu ñuy joué suñu premier match bi li ci gën a li ci gën a neex mooy au pire des cas. Hmm. ñu jëlee ci benn point. ñu jële ci benn point boobaa dinañu mën a dugal completement dans la compétition ah vu que ñun suñu ay adversaire mhm. gis nañ leen tey mhm. vraiment li may dénk Sénégalais yi nañu ñaanal seen équipe mhm. comme ni ñu ko ñaanalee woon à la dernière Coupe d'Afrique gis na Coupe d'Afrique bi ñaani Sénégalais yi amoon na ci solo de dëgg la amoon nañ ci solo bu baax a baax a baax a baax nañu boolewaat xol yi te jàppale suñu équipe bi tey jii suñu président bi gis nañ ko mu yab leen ca dowa dëgg la yab koo xamante ni góor boo ko yab hmm. su demee dana dana dana dana góor góor dana fas jom waaw hmm. waaw parce que ku ñuy yab ku ñu ku ku ñuy ku ñuy tegge sa baay nii dafa dafa am hmm. ah, dafa amoon fit am jom yow loo ragal ragal ragal dem nag foo demee war ngaa ku la ku la ku la ni ha war ngaa mën a xulli bët <laughs> absolument waaw te mm. ca Sénégal moom. ah. non non dëgg la absolument absolument. allo. oui yaa ngi dégg. waaw te Sénégal moom mm-hmm. te jii seen président dafa dem ba dawaa mu yab leen. te ñun un a un entrepreneur exemplaire ex expérimenté. te xam naa ni euh, sur le plan. Mm-hmm. psychologique. Mm-hmm. joueur bu mu jàmmee ci sera un véritable gaynde. absolument moom ci boppam gaynde la. qui sera ah. ma moom ci boppam gaynde la. ah non Aliou gaynde la <laughs> ay ay joueur ay gaynde lañu ay ñoom ay ñoom Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye ah Aliou Cissé ñi ko entouré ah c'est des véritables gaynde ñoom mm. Malick Daaf. la ak euh, euh, staff bi nga xamante ni ñoo nekk ci ci ginnaawam yëpp. dëgg la ah, parce que gaynde tax mm-hmm. tey jii vraiment. ñu mhm. ñu agsi fii doon ay gaynde mhm. moo tax si fii ñu agsi tey ci football. dëgg la ah. euh, le pronostic de demain pour yow naka lay demee lan la mooy lan mooy nga yaakaar ne moom mooy score suba. non score bi ah vraiment euh, laaj nga ma loo xamante ni dana jafe loolu pour ma tontu la ci. dëgg la mais je sais que ni man j'ai confiance à mon équipe. dëgg la et euh, cette équipe-là mën na tenir la dragée haute aux Pays-Bas. je sais ni ñun Sénégal yi suba du ñu gis incha allah. mais kantaan nag may joxe score moom bokkuma ci ñi nga xamante ni. Mhm. dañuy pronostiquer. Mhm. voilà. dëgg la waaw kon ñu ngi lay jaajëfal. waaw jërëjëf tur bi naka la waxoo ma tur bi de. Abdel Malick. Abdel Malik. yow moom tur neex nga yor. dëgg la ah, bu ne ah, macha allah kon nag Abdoul Aziz ak Abdel Malick fu ñu daje defe naa ah, jàmm rek a nañu nañu ñaan rek te génne kurus yi. waaw am na ci solo am na ci solo ñi mën a ñaan ñi mën a ñaan. Hmm. moo xam <laughs> euh, euh, jullit nga wala catholique la wala protestant la. Hmm. moo xam lu loo mënti doon hmm. fii ci Sénégal tey. suba na nga ñaanal équipe nationale vraiment mu génn. Euh, ci mat ak ndam. jaajëf am na solo waaw kon ñu ñaanal ñaanal ci jàmm rek. jërëjëf jërëjëf ba yi incha allah. ok merci beaucoup. jaajëf jaajëf am na am na solo. merci beaucoup mu nekkoon li nga xam ne rek moom mooy euh, l'avis d'expert Abdou Aziz Mboup la ñu amoon ci euh, li nga xam ne rek moom mooy maanaam waxtaan Sénégal dafay jogante suba loolu moo tax ñu daal di yaatal ba mu yaatu ñu daal di rek jeexal. ci li nga xam ne moom mooy euh, xew suba ndaxte nag euh, Sénégal bu subaa dina dugg ci li nga xam ne moom mooy jongante bi ak yeneen jongante acca mu ngi noonu euh, bu subaa rek euh, daañu am euh, comme li nga xam ne moom mooy premier match États-Unis daal di jaamarloog Iran daal di rek jonganteeg Iran plutôt pas jaamaro jaamaro xaw a dëgër donc Iran bu baax a baax mu nekk premier match groupe B bi après ñu daal di ñëw ci group A bi ndaxte Sénégal jotul li nga xam ne moom mooy jongante ci tey jii te la ñu waroon jongante mais nag dañ koy yóbbu ba. suba ah waaw euh, suba pays ba Sénégal 16h lay doon euh, mu des euh, dernier match bi nga xam ne rek moom mooy am diggante Pays de Galles ak voilà donc troisième match bi mu ngi noonu troisième match bi moom mooy am à 19h mu nekk le plateau le programme du groupe B plutôt. léegi euh, incha allah bu subaa ah dina am li nga xam ne moom mooy plateau coupe du monde plateau euh, ba nga xam ne Sénégal day jongante sa su Sénégal di jongante day am plateau avant match après match ak ñi nga xam ne ñoom ñooy la rédaction ak euh, les experts de sunu label TV. acca ñu daal di tàggoo noonu rek ba suba incha allah fas yéene euh, dellusiwaat fii waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moom mooy xew ci mondial écho du mondial ci sunu label TV euh, bu 21h jotee rek jàmm ak jàmm bu suba incha allah euh, vive le Sénégal go gaynde